asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 16 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu lamb la yëglikaay bi nga xam ne mu di record wala l'observateur wala Leewtoo TV fu nekk rek ay xibaaru lamb tey xëy na fa li gën a fës nag olof a ko wax ñax gu wow moom saa yu lakkee rek dana faral di lakkaale gu tooy loolu mooy lan feebar bii nga xam ne daal mooy coronavirus lëmbee àddina bi nag ba mu duggee ci réewum senegal ba tey di yoot di yoot dem nag ba fi mu nekk nii day mu ngay gën a sori ba tax nag njiital réew ma génn samedi nag ne lépp lu di ab daje moo xam ca ba la moo xam ca diine jëla ngénte yaag takk yaag ceet yaag lépp moom ma ja njàng ma des koy aj fii ak weeru yàlla ndax nag moytu moo gën loolu mooy li am loolu nag daa mel ba mu ñëwee moom fàttewaalewul làmb ja laawaale na ko mu mel ni kon yëglikaay bi na daal Covid 19 ba moom affecté nag kii nga xam ne moo di Papa Sow ak Siteu combat ba daal dootul am moom ca dat ba nga xam ne nii jàppoon nañ ko ca mu mel ni kii nag ba tey loola du ca yem de ndax nag yeneen combat yoo xam ne nii day waroon naa am ci weer yi nga xam ne ci leen lañu nekk mois de mars bi ba avril combat yooyu yëpp moom aj nañu leen maanaam daal dootuñu am yëglikaay bi di su làmb xëy tey ñëw wax nu ko waaye yemu ca de daa ñëw ca ña nga xam ne nag ñooy VIP ya mu mel ni ki ñoom mbir ma lu muy metti metti ci ñoom la gën a tar ñoom ña doon xaar ay combat ndax boo jëlee 30 jours yoo xam ne des koy toog yëngu-yëngu du am ci réew mi ñu ne déet ne waay 30 jours yu koor ga ñëw muy 60 jours yoo xam ne boo ko boolee daal kon jàppal ne koon ñii nga xam ne mooy VIP moom làmb ren boo sàgganee dégg lañ koy def ak ay nopp waaye takk ngemb di daagoo ko laggu moom duñu ko def moo xam Balla Gaye 2 la seen bombar Bombardier Gris Bordeaux ka nga xam ne nii moo di Lac de Guiers numéro ba ci Tapha ki nga xam ne nii nag moo di Modou Lo ak Ama Baldé seen combat itam daa ni de fi mu nekk nii doy nag waar ak libération la nga xam ne moo di Luc Nicolaï mu mel ni ki daal fi mu nekk nii kon Covid 19 ba moom moom loo ci mën a dégg moom yàq na lu baree bare record itam ñëw na ca de nee na Covid ba moom renvoyé na Siteu ak Papa Sow mu mel ni ki daal mbir moom moo nekk fa nga xam ne moo di ca l'observateur waaye Siteu moom daa ni daal la moo xamle ca yëglekaay bi di record daal moom affaire ko moom nangu na ko de daa jàpp ne daal dogal sunu borom moo ñëw waaye soq gàmmu gi itam day naroon naa am ci dimanche jii nu génn di démb moom itam Covid 19 baa ko jaar laawaale ko yóbbu ko ba combat ba itam mujjatul am bu nu delloo nag ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb moom daa mel ni waa làmb ja ku nekk yaa ngay joxe sa xalaat ca mbir ma ki nga xam ne nii moo di Pape Diagne moom nee na li leer ba leer de affaire bi moom ah doy nag waar te itam lu yéeme a di ab entraîneur moom tamit xam ne nii daal moom la ñu jël Serigne Modou Niang moom la mu wax moom na nu ànd solidarité nangu la njiital réew ma wax yi daal ñi ngi tamit lu mel noonu daal la wax moom ne na ànd na ca la nga xam ne nii moom la président Macky Sall wax Sall ba itam lu mel noon la wax lu Ndiaye moom ne na la santé avant tout belees di tal ay tëggi làmbak yu mel ni ki noonu moom day fekk kay nga wér balaa nga naan naam danga fay ne looloo gën a wóor leneen loo xam ne itam day coow la ci réew mi muy diggante arbitre ak docteur Alioune Sarr mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day li leer ba leer Alioune Sarr moom décision ba rek nan ko waxee woon kenn àndu ci ak moom moo tax nag yëglekaay baa ngi ñuy ne day Matar Ba ma yore espoir réew nag moom fi mu nii day moom la woo ñëpp a ngi ko tàllal loxo ngir mbir yi mu dox ci jàmm ci diggante arbitre ak ña nga xam ne nii ñoo di waa CNG ba moom Matar Ba mooma nag ay millions yu bari génne na ko dugal dimbalee ko état bi ci wàllum xeex lii nga xam ne nii moo di coronavirus ba loolu mooy li nga xam ne ni mu nga ci sunu làmb leneen loo xam ne itam mu nga ca Leewtoo TV nu fekk ko fa muy diggante Bébé jén ak Fourrière mu mel ni ki combat ba moom kera meloon na ni njar ndéem ñaari xale yoo xam ne ñoo tolloo kii ñuul kii xeex ñuy bëre di xeex di bëre di xeex di bëre di xeex protestant yay wadd ñuy jàppante jàppante boo xam ne foo ko takk ci ak taraay weesu na ko ba yàlla def nag kii di Bébé Diène mujj daan Fourrière bu rëy rëy Ndiaye moo fa jaaroon mu mel ni kon Assane Ndiaye daal làmbam jooje moom boo bëggee dégg dëgg moom metti woon na ba yegg ci lool lool lool lool waaye jamono jooju itam ca bar ñi sëñ Modou ñaamu fa tëggoon làmb yëglekaay bi xamal nañu day làmb ja moom jamono ja muy seetaan la nga xam ne mooy combat spécial ba daal ca la ñu toj li nga xam ne nii moo di otoom moom sëriñ Modou ñang promoteur alternance ba mu mel ni kii daal kon li leer ba leer moom fa nga xam ne moo doon bar ñi ak Dakar ci samedi yi moom waxoon na ci ay làmb waaye li leer nag corona ba nag mujj na ñëw laawaale lépp mbuur sax làmb jafa amoon ñu commencé yi bëri dañu koo tas ndax corona ba waaye Bébé Diène ak Fourrière mu mel ni Fall yaa ko filma kera xam naa ba ngay filma làmb ba tey làmb ju mel noonu moom jafe naa gis ñaari gune yu tolloo at tolloob taxawaay di xeex di bëri kële war a Medina kële war a Grand Yoff Assane Ndiaye a fa jaaroon mu mel ni kon daal Bébé Diène félicitation di courage Fourrière démérité wu ngeen ku ne def nga jom waaye moom mooma nag tey lay feeta anniversaire am le 16 mars happy birthday to you borom Baol production Assane Ndiaye waaye Aïssa itam daal daa mel ni ni mu dikki bi yoon saf na sap xaw ma lu ko mos a ñaa jox tey salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal ginnaaw Babacar defee revue de presse ba pare ñu daal di ñëw ak yéen ci jàngat bi nga xam ne nii mooy revue de l'arène bi Babacar ma leen nuyu bu baax di la wax na moon naa la ak weekend bi <laughs> ay sax maa la gën a nam maa lay fay di nuyu internautes yëpp di la ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di ko ñaanal tamit képp ku nga xam ne rek yaa ngi ñuy suivre et puis tamit ku ñu suivrul tamit fu waaye mën a nekk bi rek ñu ngi la fay fekk jàmm di ñaan suñu kàddu fekk si jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi waaw Babacar dañuy dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi mais actualité bi tey di ko lëmbee mooy li nga xam ne nii mooy euh, jàngoro bi nga xam ne moo lëmbee euh, àddina parce que tam tey ñëw na ba am répercussion ci suñu sport muy li nga xam ne décision bi ñu jël 30 jours yoo xam ne du am activité du am rassemblement du am dara lépp lañ suspendre mu ñëw tamit ba ci làmb bi waaw olof a ko wax ñax goo day lakk lakk day lakk gu tooy ay tamit du yem si boppu boroom mm-hmm. mais liñ ci war a jàngate mooy président de la république Macky Sall moom moo jël décision wu kanekat lii moo ñam ko seqal ci wàllum liggéey xool ba xam ne lii moo war a am ñu def ko defe naa bañ ko defee tamit Sénégal yëpp topp nañ leen ci te yaakaar naa loolu mooy li war a am parce que nag ay euh, Aïssatou Faye wala nday Kumba Fall moytu moo gën a wóor moytu dina mat ak du mat olof na bul joxe sa loxo yaa ngi dégg comme lii am na dugg na ci réew mi nañu fagaru di moytu déglu tamit waa ministère de la santé ñu ci profité di leen nuyu ñoom tamit parce que gis nañ Abdoulaye Diouf Sarr taxawaay bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore santé bi ci réew mi ñu leen di ñaanal jàmm boo wax bu baax di leen wax ne ñu ngi seen ginnaaw mais li may ñaawlu man te bëri nañu koy ñaawlu mooy ay nit yoo xam ne def ay audio def ay vidéo naan lii amul ak laa amul di wax wax yoo xam ne amul bopp amul genn defe naa tey nit ñi amuñu jot gu toll ni monde bi yëpp lu ñu doon def ci ay activité ñu ko ndax ay caaxaan defe naa ay kilifa Serigne Mountakha bu génnee wax ziar généralu Tivaouane ñu annulé ko yaa ngi dégg appelu laayeen ñu annulé ko kazu rajab noonu ak leneen ak loonu waa église ba jaar foofu yow nga taxaw naan lii amul lii amul même boo xamul ne amul sax xanaa nga noppi dafa am ñoo xam ne nag maanaam ñoom xawma luy seen problème maanaam far-farloo bu bëri par-parloo baaxul nit mën ngaa far far ak ndey ko ay Aysatu Fay mooy tax bu dëgg jotee nga wax ko ko bu nekkee ci yoon nga juba bu bu bu bu jaaree yoon nga ne ko nañ dem waaye farfarloo nag moo lay yóbbee ci yow bu aysatu nee ci lu dul dëgg sax nga ne ko yaa ci dëgg loolu farfarloo la yal nañ ci yàlla musal encore une fois nañu ñi mu dal yal nañu wér ak jàmm ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam et puis tamit ñu waxaat état bi ñu gën a farlu ci aéroport bi ak frontières yi parce que tamit luy wàlle moom defe naa ne ku ko yor ku ne war nga mën a toog fa mu la dali ñu jëm la faa faj ba nga loolu moo solo loolu nag moo ñëw ci làmb ji defe naa nag am na foo xam ne nit dañ ne fu ñuy fu ñuy fu ñuy feese Aysatu Fay kenn du fa jóob góom yaakaar naa ne buñ demee ba lu mel nii am làmb ak football ak lu mu ci mën a doon lépp dañ ko war a aj parce que buñ demee ba la ñu gëm muy diine ji ñu aj yëngu-yëngu ya kon waxaale wu ñu làmb ak football ak la ca des quoi waaw waaw ba tax na ñi mbër yi nga xam ne comme ñoom Siteu ñoom Papa Sow ñoom Sokh ñoom Gamou Gueye ñoom ñi nga xam ne seen combat jege si woon nañu préparé tey ba des lu dul sëgg bëre parce que li des mais ñu xam ñu daal di leen pousse mu nekk tamit loo xam ne du ñàkk conséquence ci seen préparation ak ci promoteur bi nga xam ne tam booba léegi investiroon na xaalisam. bien sûr dana metti parce que tamit euh, li ñuy wax rek euh, loolu lu metti la parce que ku génn xaalisam di décider tëgg dara ba ñun des na suba la nga war ko tëgg yàlla ñëw ak dogalam loolu moo lay won ne ñun ay mébét la ñu am mais suñu borom bi moo am kattanuk dogal dogal yi c'est ça su ko neexee la koy def parce que kenn xalaatu koon loolu yaa ngi dégg ku mel ni Baba Diaw mi nga xam ne moo waroon tëgg dimanche soq gàmmu gi kera bi ñu tajee islam bi ma ko waxee lan la ma daf daf dafa ànd ak yàlla ne ma lii dogal suñu borom la te am na loo xam ne ni moo gën nak priorité xaalis xam nga balaa ngay tal yor xaalis di ko denc wala ngay solo ka toog di wax day fekk wér-gu-yaram ne fa yaa ngi dégg waykat bi ne lu waaye ji ñaan ñett boole wér gi yaram wér gi yaram moo ñara moo ñara sàkku yàlla nañu yàlla defal wér gi yaram muy Pape Abdou Fall ak ñoom ay sénégalais lañu ñoom ñi tëggoon lamb yi yépp ay Baba Diaw ak Fallou ku mu ci mën a doon ñoom réew mi ne ci jàmm mooy seen priorité ndax bu loolu amul la bëgg duñ ko am kenn du am la nga bëgg kon yaakaar naa ñu ngi leen di massawu di massawu tamit mbër yi tamit ku ne dégg na réaction aussi mooy li nga xam ne ni moom la ñuy xaar comme na defee ànd ak daan coronavirus du loolu la wax ñu ànd ñun ñëpp fexe koo daan ci xel ci xalaat bañ tamit tiitalante gis nañ ay geste yu noble ñu koy def sëñ Mountakha jëkkee na ko gis nañ Youssou Ndour def ko Wally Seck def ko Pape Diouf def ko ministre Matar Ba def ko nag ku ne jéem a def loolu ñu àndandoo lu waaye man doole yi tolluwul mais xel ak wax bu rek neex sax saral ndey yow mi Aïssatou Faye waaw <laughs> ah, Babacar ba tey ci loolu la suñu lamb jàngat daal di ñëw seet ñi nga xam ne ñooy VIP yi nga xam ne amaguñu combat mu ne nag est-ce que du fi la ñuy jaaree rek daal def seen saison blanche parce que bu trente jours yi weesoo ñu duggaat ci beneen weer mu doon weeru koor gi tamit loolu tam nekkaat beneen période boo xam ne activité du am si làmb ji mais est-ce que euh, VIP yaareew ñu fa rek daal di toog ba déwén waaw daa mel ni ren moom c'était seenum at la waaw parce que ci doon xalaat dafa mel ni mu ngi ci bëgg a am parce que nag bu ñu toogee 30 jours yoo xam ne dara du am ñu dugg si koor te weeru koor ku na xam ne ne zeru ramadan moom am na activité yu bëri yoo xam dañ koy wàññi yaakaar naa kon su amee kon ñoom dafa mel ni kon ren année balance moo leen di yoot mais nag li am solo daal mooy fekkee tal leneen ba ëllëg parce que bés yemul ci benn daal waaw Babacar euh, coow arbitre bi ba tey am na ñoo xam ne ñi ngi ci di xaar tamit li nga xam ne mooy médiation bi ministre bi ñëw daal di def médiation daal di jéem a dox euh, tànk jàmm diggante ki nga xam ne mooy Alioune Sarr ak arbitre waaw loolu la ko ñëpp di ñaan moom Matar Ba parce que tamit yaakaar nañ li tax ñaan ko loolu lu mu wan doomu la ci disponibilité am ak ci tamit ci waxtaan ak nit ñi kon monsieur le ministre Matar Ba defe naa loxo boobu ko sénégalais yi tàllal ngir mu dox jàmm ci diggante waa CNC bi ak arbitre yi te muy eh, kilifa ak ñëpp ñooñu yaa ngi dégg kon defe naa loolu moom dina ko dégg te yaakaar naa dina ci dina ko def parce que tamit gis nañ lool ci moom daal Pape dañuy jeexal ak euh, gala weekend yi même bu ngay dimanche amul mais samedi ki nga xam ne ni mooy euh, bébé jël daal na daan ki nga xam ne mooy fourrière ko euh, mbaa baat ñi tamit amoon na foofu la sëñ Modou ñaa tëgg yi waa mu mel ni kon yàlla dafa def ñaari combat yu ñu jotoon am ci weekend bi far ñu téye la des mhm. gala bi amoon mbuur commencé woon na mais dañ ko arrêté après ci guddi gi yaa ngi dégg fourrière ñëw fa nga xam ne nii mooy arène nationale mook bébé jeen Assane tëgg leen mu nekkoon ko ma boo xam ne Aïssatou Faye defe naa ne kera moom wax dëgg yàlla boo bëggee gis làmbu kera parce que bëree dañuy bëree di xeex di bëree di xeex kenn mayut sa morom dara kenn triché wu ci ñuy bëree di bëree di bëree ba yàlla def bébé jeen daan ko jël bu réer réer parce que bébé jeen waaye mën a wax tamit ku dëgër la ku man a bëre la et tamit ku mën xeex da ko seqoon tamit xam tamit loolu na ci la ca desoon mooy booy bi xaw a naagu ci loolu Bébé Diène rek pifatu duur ko tànk tuur ko daan ko jël bu rëy rëy moo lay wan ne moom daanaan la mais ay xale lañ démérité wuñu ñoom ñaar ñëpp Bébé Diène ñu ngi koy félicité di encouragé ku Fourrière ak waa Grand Yoff ndax keroog li mu wane wane na que ni moom xale la boo xam ne waa Grand Yoff war nañu ko gën a mën a jàppale am ci moom yaakaar Bébé tamit waaw la mu daan def rek la def ndax yaakaar naa ne itam ku ne xam na ko ci xarañteem ak mën a bërim di ko félicité di félicité waa Médina bi yëpp gis nañ tamit Père Kayre lu rafet kera mu ëmb ko indi ko ñaari xale yi jël la am mu def sast bu noobul moom per Kayre yëkkati mbërëm jóg dem yëkkatiwaat ka nga xam ne moo daanu mu wane ne kon moom xale yi doon bëri ay doomam la ñu daal waaw waaw ah, Babacar am na solo parce que lu rafet rek euh, moo am solo parce tey Berkay rek war na mën a am taxawaay boobu noonu ak li nga xam ne def na ko ci làmb mu am ay doom yu bëri mu mu njabootee làmb am écurie am na gestes yoo xam ne xaar nañ ko ci moom ci loolu la ñuy daal di tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy suivre euh, seen revue de l'arène di jaajëfal ñëpp ak di remercier ñëpp di ñaan yàlla rek comme ni ñu ko defee chaque jour feebar bi nga xam ne moo ne si réew mi ne ci àddina yàlla teggin ni ko ci ni mu gën a gaawee ñi ci feebar yàlla yëkkati leen si jàmm ak salaam ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal yàlla si yàlla musal ñëpp incha allah mais Babacar tey damay souhaiter joyeux anniversaire sama doom sama sama jëkkër sama lépp muy biram Ndiaye di sama xaritu doom di ko wax euh, biram dundal lu bëree bëri dundal ba say may di baawaan yàlla def la mag magu lislaam ah nga dem ba teral ñëpp daal incha allah wërsëg bi yaatu ñu dem ba lay wàcceel jabar si kàttanu yàlla dundal lu bëree bëri amin amin yàlla na yàlla nangu ñaani barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax tamit euh, happy birthday to yu kooku noonu nga wax Birame yàlla na nga gudd fan wér dem ba nekk njëriñu say wayjur yaa ngi dégg ak ku la yàlla booleel di wax tamit Assane Ndiaye di ko souhaiter joyeux anniversaire yaakaar naa xaw démb la xaw ma waaye loo ci mën a dégg daal màggal na anniversaire am borom bool production ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy ak fu ñu mën a ne àddina bi rek di ñaan yàlla kan yi jàmm comme ni nga ko waxee yàlla na sax ci àddina bi feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee parce tamit loolu rek moo États-Unis ña nekk Chine fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla musal la te muccal tamit waa réew ma nga ne